Orai bai mote, orai mai na malewo maa ngi leen di siyaar bu baax di nuyu euh, yéen waa Xibaaru Bambouck et aussi di nuyu koñ bi yëpp bon. Mhm. final bi actuellement. Euh, lépp li nga xamante ni tey ñu euh, pare na rek ñu pare nañ ko pour def ko. instant bi ñu ngi koy waajal bu baax. Mhm. supporters yi ñu ngi koy waajal. bon matukaay yi teg nag lépp loo xamante ni tey jar na pour ñu gagné final bi rek. Mhm. teg nañ ko. ok lépp loo xamante ni tey jar na pour ñu gagné final bi rek. Mhm. instant bi moom euh, ci wooyu nekk ne Yogo dafa gëj a mais bi nga ñëwee nekk président ak ak grand yi ni ci jàppee ren ASC bi amaat beneen tournure loolu tim la ngay wax en tant que président. bon loolu aussi dama ci sant yàlla sant ci grand yi sant ci waa koñ bi parce que tey bu demee tey ba ñëw tey final je pense que du du du du sama personne rek mais bon. ñu nekk ci ginnaaw aussi tamit ñoom ñëpp dañ ci joué. Mhm. grand yëpp dañ ci jàpp kon donc peut être tey ci ci sama air tey la ñu waroon a ñëw fii mais aussi tamit ba léegi dafa guñ parce que fam lu des parce que léegi euh, gagné wuñ final. Mhm. dañuy dem final mais duñ ko gagné. Mhm. Euh, ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp euh, di wax ni vraiment kontaan nañ ci reportage bi nga xam ne tey final Bambey na PDG boo ma laajee ñun nan la ñu préparé final bi yaakaar naa ni les images ñu koy wane depuis yàgg nga. ñu nekk ay nit def jëfi mhm. final bi mhm. ah, ki ko war a ko nag waaye nag yàlla may ñu ndam ñun bi comme yàlla daf def ñun dañoo tàmm kadek senior di ko finalu ren yàlla def kadek rek ko kon lépp lu ñu war na waajal si senior gi ak dañ koy def si kadek gi rek ñaan yàlla yàlla may ñu ndam ñu fi newoon sax ñu ëpp ñu fi ne waaw ndax waa diaspora bi ñun dèjà rek ñun ñoo gën a jàpp si match parce que ñun match par match dañ ciy jàpp en plus ñu nekk dakaar ñu nekk Koungheul am ñu nekk Kaolack kon amul leen loo xamante ne lu dul jaajëfal leen wan leen ne nag final bi moo suñuy final te gars yi ñu la mais man wax naa la ne du fet que am na loo mooy lan ñu dara quoi dañuy dawloo daal je pense que ñun ñëpp xam nañ li ñuy xaar quoi commencé ko si man ba si ñeneen ñoo xam nañ li ñuy moom c'est bi ndax lépp waroon ci dirigeant yi en tant que président as def ko ci yéen ba jour bi ngay war a mën a taxaw loolu moom président moom vraiment xam nga doomu aadama lenn lenn moo solo maanaam nga yëg say nit quoi loolu mooy mooy lu njëkk. li nga yëg bi rek day complété lépp même su dara manqué woon sa yëg bi day complété lépp parce que sooy ñëw sax ni muy communiqué ak yow à tout moment mu ngi xool yow si la nga nekk surtout yoon bu xat bi transport bi xam ne dafa métti mais def na le tour décarcassé wu. ñëpp xam na ne paas yi 14000 ngay paas pour ñëw presque lépp la gérer quoi joueurs yi ñu ngi ñëw. Mhm. mun naa wax ne effectif bi su manqué kenn mooy des vraiment moo SFM mention spéciale quoi job nañ joueurs yëpp ñu ngi fii quoi. léegi nag message yu joueurs yi lan la ko bi en tant que ngay wax sa moromu joueur si joueurs moom affaire bi rek bëgg la suñ bëggee def ko. parce que ñoom moom dañuy wane neen ko parce que la preuve Samuel nekk fi woon début saison championnat bi Birane nekk gis nga difficilement lañ doon footballé manquant yoo xam ne suñu côté offensif bi kenn nekk fi woon mais dañoo gérer match yëpp yàlla dimbali ñu dimbali ñu bañ dem ba final kon def naa ne malgré bi mu ngi réunir kon def naa ne war quoi mooy gagné di incha allah coupe bi fii nii quoi gars yi bëgg soobee yàlla. jaajëf coach euh, capitaine. <laughs> leen wax ne liggéey bi rafet na trop. merci beaucoup. waaw final moom mën naa wax ne final moom final la quoi. Uh-huh. final bu lépp ñu am lu nekk dañu ciy def. waaye. Uh-huh. parce que président uh-huh. équipe bi gën na jël depuis 2007. mais après 2007 ba léegi final bi dañuy gën. kon final bi ren incha allah ñu am benn rythme ak benn engagement. parce que gis nañ innovation boobu. gis nañ supporter yi ren ñu tamit si saa kon ñun pour ñu bëggee leen. dañu final rek la ñu mën a dem ñu mën leen bëgg a wax. Mhm. te yaakaar naa ñu ngi si lancé boobu noonu. moment bii nii euh, comme ni ñu ko waxee lan mooy état d'esprit joueur yi wax nga ne waa koñ bi yëpp yëpp nañ leen ñëpp par nañ pour yéen pour ngeen gagné yow en tant mooy état d'esprit bi bi lan ngeen yëg ci moment bi bi supporter dem ñëwee koñ bi ñu defar ko mën war a jëli ko ko la mën a wax moom maanaam mooy mentalement pare nañ quoi ok yaakaar mhm. na waaw li may wax rek comme final lañ wax moom. comme ni koy gars yi di waxee. mooy final bi tout quoi saa sa gañ lañ wax. saa sa gañ te yaakaar naa ci lancé boobu noonu tamit la ñuy demee. Mhm. dañuy dem ci final pour gañ ko quoi. ok te yaakaar naa incha allah tamit yàlla dinañu may ndam. yàlla may ndam ok merci capitaine. waaw d' abord di di leen nuyu rek. di leen jaajëfal bu baax si ñëw bi di leen wax bienvenue. yéen a ngi fekk ñu ngi ci wàccaay yi nii. di waajal le 28. mu nekk loo xam ne dañoo bëgg a nekk mu nekk loo xam ne c'est inédit parce que Kade Diama mosuñu jël coupe dañuy dem final mais a un problème pour ñu jël coupe bi. Mhm. cette année depuis ma ñëw ci jël équipe bi nag maa ngi def de mon mieux ba yàlla dogal ne deux ans yi ñu ci parcours bu baax léegi nag pour ñu parcours boobu pour ñu euh, ñu terminer ko ak beauté il faut ñu am benn trophée mën a récompenser parcours bu ñu def depuis daaw ba ren. Mhm. te sama joueurs am na ci état d'esprit bu baax macha allah parce que déjà le président mu ngi fi tout le temps mu ngi mel fi tout le temps di encourage équipe bi ñu ngi koy préparé ñu ngi def nga gàmmu réew ma la jógee ñëw ñëpp ñëw nañ instant jëluñ ko pour affaire de cadre kese mais dañoo jël booy def ko comme match quartier bi ñëpp tout le monde se parce que c'est une première il faut que coupe bi la première fois ñu jël coupe mhm. yàlla dogal ñu jël loolu moo amaat fi encore. poule mu métti mhm. nekk 0-0. Mhm, mhm. ngeen bokkoon poule après nga jël mu premier ngeen jël deuxième. c'est vrai ñëwaat final na euh, beneen domaine la. ni ñu doon yeneen match yëpp ko préparé mais bii dañ ci yokk benn plus c'est-à-dire plus bi mooy état d'esprit bi. parce que final comme niñ ko diñ ko joué dañ koy gagné te état d'esprit boobu man comprendre naa parce que joué naa final kat joué final si am naa sans joué ñaari gagné ko donc am na benn loolu moom moom laa yokkal booy plus rek et c'est sûr que daara ji depuis daaw mënuñu gagné ko dóor ko gagné ah manque voilà efficacité booy moo tax ñu jël pay seen kaw et am nañu yaakaar ne cette fois ci danañ koy leeral ban message di ko délivrer pour les supporters wax ñu war a ñëw jour a xam ne match di. wax yàlla yan si yàlla yóbbu si jàmm ak salaam d' abord di wax non violence loolu ñuy woote d' abord violence. Mhm. non violence ñun moom incha allah dañuy wax suñu support wax ak ñëpp ñu xam ne final lii fet la ñu ñëw jàpp ci. jàpp parce que cadets yi du uniquement ay cadets kese dañu leen war a bàyyi noonu foo ñu ñëw soutenir leen accompagner leen. bi fees ñëpp après suba ñoom ñoo fi nekkaat parce que man tout le temps loolu laa xeex tout le temps dama ne petite catégorie dañu ba tout récemment moo ci mujj sax laajee bàyyi topp xeex naa ci ba soo mën na ko benn coupe c'est insuffisant parce que boo yi ku ci demul final yow doo yëg neexaay bi donc ñu yokk plus beneen coupe wala coupe maire loolu day permettre booy am envie toog vacances fii nii ñun on a la chance booy nag duñ dem fenn parce que dañuy wax ak ñoom ba duñ dem mais buñ demul final après mooy loolu di encourager ñëpp di wax yàlla ñu si yàlla yóbbu ñëpp ñoo jàpp ci woo suñu supporters di wax ñëpp ni si ñëpp si ñëpp jàpp yàlla yóbbu si jàmm ak salaam incha allah ñu gañe ndam li indi ko suñu ak koñ tawfiix merci beaucoup. a waaw vraiment ñu ngi lay bu baax waaw di sant ñëpp waaw di wax comme ni ñu koy préparé yeneen match rek final moom ñu gars yi c'est la fête waaw dañuy ñëw pare nañ lépp pour dem jour ba ñaan yàlla may ñu ndam di ko pare normal comme lu may wax booy rek football moom final moom du duñ ko fuba dañ koy gagné waaw man noonu laay demee te incha allah am naa yaakaar noonu lañ koy doxalee daal waaw waaw am naa confiance bu booy liggéey nañ lu ñu war a liggéey def nañ lépp jour ba dañuy dem waaw jàmbaar ndaw tase nañ moom si match de poule ñoo bokkoon poule 0-0 match bu métti waaw match boo xam ne yombul ñu ñëwaat revanche ñun ñaar. mu mu mu jël pee suñ kaw ëppale ñu benn bii te boobu dañ ko bëgg a fàtte jël yëpp couvert booy loolu la ñuy te loolu la ñuy tëddee xam naa ne jour ba incha allah dinañ gis. Euh, waaw avant ñuy dee di waaw waaw waaw waaw kër bi dina am te incha allah bi dina am pare nañ ci ñaari côté yëpp di ñaan yàlla may ñu ndam comme ñu ko doon doxee rek waaw ñu ñëw si senior bi yaa ma gën a xam ñu jaar la woon foo woon rek waaw. Urai oh, jaamale woo yoo. Raay Moté Raay Moté yoo. Raay Moté Raay Moté naamale woo.